continue gars actualité bi ñu fas yéene waxtaane lii di nak classement FIFA officiellement ak ñi di wa Maroc ak Sénégal wax également ci ki nga xamné moy donc Kylian Mbappé ak Boubacar Kamara le grand perdant ci li nga xam ne nag mooy donc ci coupe du monde bi lépp la ñuy indi ay leeral mais d' li nga xam ne mooy wàllum NBA Kevin Durant actuellement dafa gagné waat ñaari place ci meilleur scoreur de l'histoire de la NBA actuellement nag dem na yegg seizième place bi moom mi nga xam nag il était à la euh, dix huitième euh, position ki nekk ci kaw nag mooy léegi Karim Abdul Jabbar ba léegi ah topp ci LeBron James euh, lii i kaay ñëw ci xët njëkk ñëw ne. Baragay 2 euh, plutôt a un ascendant psychologique que l'on Canadien caradien, ko wax da def analyse ci combat Balla 2 ak qui di donc Boy yene a bi nga également nak également également yene kay bi di record ñew né euh, la troisième étoile brillera pour l'Albi Céleste loolu la wax wax également les lions qui tiennent tête au Fennec jëm ci nga xam mooy jongante bi amon ci euh, suñu lion locaux yi ki di wax aussi Messi définitivement dans la légende si kay bi di stade ñew né Messi touche enfin le haut avec l'Argentine Mon mi nga trophée bi moo manqué qui eh, di nag Walid on a montré qu'en Afrique on travaille On na Afrique ñun ñu ngi liggéey wax ci aussi nga donc classement meilleur joueur meilleur buteur ñu l'équipe on est la tête haute eh, par rapport à nga donc performance bi équipe de France def dem 3-3 dem ba li nga donc ci série tir au but Dadi di à trois reprises gars yi dañ eh, mené ah, comme on peut dire donc Nidi. di histoire football également dinañ ci jàpp Lionel Messi ak soxnaam ñoom ñaar waxoon naa leen ko depuis bañ nekkee tout tànk ba léegi ah donc vraie histoire d'amour ni ko mu ne waxee moo tax nekk na loo xam ne aussi marqué woon na jaar-jaar Lionel Messi ngeen gis image bi nekk image bu rafet moo ko si donc nekk donc loo ne gars yi mi ngi def tour euh, de la toile sans oublier aussi ah njabootam bi gars yi naan léegi kan moo nar nekk relève bi ci doomu Lionel Messi yi en tout cas gis ngeen doom yi ñu ngi nii ñoom ils ñëw donc ñom laal nañ trophée yëpp ah doomu Lionel Messi donc gis ngeen ko tawam ak euh, ki top ci mom ñoo nekk ni donc la Pulga bok aussi ci joueur yo xamné dans l'histoire du football Lionel Messi gars di fàttali rek moy actuellement le septième joueur dans l'histoire du football à ah, avoir tout gagné hein ah, gagné na lepp muy coupe d'Europe bu dee ni Copa América la mom gagné nako ñi nek Europe ñom di gagné coupe Europe mom la Rivaldo Ronaldinho kaka donc Zidane qui ah, également donc euh, Lionel Messi ñoo nek à la septième euh, place ah 7e jour bu mës gagner trophée yep hein kii di Lionel Scaloni également hommage à ce gars gars yi ba muy ñëw gars yi deux matchs intérim la ñu xon lay lay entraîner Argentine finalement mu dem woy ba ñëw tay nekk entraîneur bo xam mo moo Argentine Argentine troisième étoile am donc l'histoire elle est belle kii di euh, tamit Kylian Mbappé xooleen statut boy bi hein donc boy bi demagul fenn mais 14 matchs 12 buts trois passes décisives donc boy bi actuellement ah, mi ngi ci trasu le roi Pelé Kylian Mbappé le futur du football français moom mi nga xam également ah, gars yi. ñii di waa Argentine dañ ko defal une minute de silence ci vestiaire ya ndax li mu doon wax ne euh, footballu Euh, américain développé wul et sur wàllu sud américain développé wul tax na gars yi ba ñeme ci ñoo def une minute de silence ne rendre ko hommage li kii di Kylian Mbappé ni mu leen woon kii nag di xam ne mooy donc Emiliano Martinez gars yi nag lu tax nga def li ni ma mu ne boobu français yi ñoo yuuxu dama leen doon wan euh, daal la wax ne moo tax mu daal di def euh, geste am noonu ki xam ne mooy Arturo Vidal moom nag également nee na actuellement donc ñii di sud am ca sud Amérique football bi dafa avancé. commencé ndax foofu la lépp tàmbalee bokkul ak Europe moom daal day gaaruwaale ki xam ne mooy donc Kylian Mbappé mi waxoon ne donc euh, football américain développé sud américain développé wul loolu daal la Atrovi daal daal di tontu li nga xam ne mooy équipe de France gars yi ñii équipe de France ñi ñëpp ce son des joueurs d'origine africaine moo tax démb li ma wax gars yi rek euh, boo gañee ñu ne français nga boo perte ñu ne doo français démb ki nga xam ne mooy donc Kingsley Coman euh, façon euh, wax ju ñàgg te ñàkk teggin gu nekk wax nañ ko waxu raciste bu nekk wax nañ ko ko nekk loo xam ne également ñi ngi koy ñaawul te booy seet gars yi li may wax rek mooy que ne nekk euh, fi nga dëkk. nga représenté ko dara gënu ko neex dara gis ngeen fii nii gars yi nag waa l'équipe ñoom dañ ne bii bii dañ ko waroon a euh, refusé bii Messi bi parce que bi règlement bi nag waxul loolu gars yi pour mu leer règlement bi dafa ne joueur bu fekkee ne dafa dugg ci terrain bi nan la mën a influer ci jeu bu fekkee dafa influer ci jeu bi wala bu fekkee ne moom dafa euh, bokk loo xam ne dafa annulé benn occasion wala dafa influer directement ci jeu bi mooy tax ñu jàpp ne donc bii boobu dañ koy refusé mais ñii ñoom influer ci jeu parce que ñoom ba ñuy dugg dugg ci terrain bi sori nañ loolu fi occasion bi amee moo tax daal li waa l'équipe wax euh, nekkul loo xam ne lu taxaw pendant ce temps aussi gars yi commencé wax nak né ki di Didier Deschamps est ce que day dem wala du dem est ce que day toog wala du toog parce que ki nga xam mooy Le grand, né woon na jamono ji Deschamps lepp ci mom la dess ndax final lañ ko xor mu dem dem na final maintenant Didier Deschamps est ce que day dem day bàyyi place Zidane ou pas lo lañ xaar le plus grand perdant nak ci coupe du monde bi notamment ci équipe de France moy ki di Boubacar Camara ci ndorteel ga gars yi lu dañu wax né Didier Deschamps dafa bëggoon a bloqué Boubacar Camara bo tax mu convoquer won ko ci weeru juin ñi nak wa France jamono ji ñom ñi ngi def sen prévision ci coupe du monde bi di ñew di wax joueurs yi nga xam ne jàpp nañu ñom ñoo nekk relève bi amul benn

defoon ñii di donc wa Maroc officiellement classement FIFA bi Maroc mooy quatrième ah ci classement FIFA bi ci coupe du monde bi le Maroc est euh, placé est classé plutôt quatrième les lions de l'Atlas yi nga xam nañ sen bopp bu baax a baax ba tax na sax li nga xamné moy donc onze type bu l'équipe euh, gis nañ ci li nga xamné moy donc minimum ñetti joueurs wu Maroc yo xamné ne bokk nañ ci muy Amrabat di Saïs ak également akimi Lionel Messi bien entendu ak Kylian Mbappé ñom ils sont euh, présents bokk na ci également Fernandez bu Argentine bokk na ci Modric Saka ah Acuna ah, donc Argentine aussi bokk na ak Guardiola espagnol di Sénégal ñom ñoo nekk actuellement 10 dixième officiellement sur classement FIFA bi ci coupe du monde le Sénégal est classé dixième Sénégal bi nga xamné nak gaay ah, donc mom li ñëpp di xaar ci coupe d'Afrique bi di ñëw ndax mom moy nekk équipe A battre bi Cameroun nak également ñom ñoo nekk dix-neuvième position Cameroun bi nga xamné mo daal di Brésil ci match de poule avec Vincent Aboubakar et tout donc Cameroun donc ñom ñoo nekk dix-neuvième ci classement FIFA bi ñoomit it seen objectif mooy jëlaat Coupe d'Afrique ndax ñoom gëjoon nañ ko jël lool lool lool ñii di waa Tunisie nag ñoom ñoo nekk à la vingt unième place les Tunisiens yi nga xam ne nag ñoom ñoo defal bagage ñii di waa équipe de France ñoom la del jëf leen ñu nekk vingt unième donc ci classement officiel bu euh, FIFA les Black Stars du Ghana muy donc ñoom Otto Ado, ancien sélectionneur maintenant de cette équipe donc du Ghana ak ñoom ki xam donc ñi André Ayew et tout ñoom nag ñoom ñoo nekk vingt quatrième donc la ñu nekk ci classement